jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ñoo ngi fii seet si woon ki nga xamante ne mooy double moteur mu def open press mais ñu topp ko bu buntu këram bëgg waxtaan ak moom double nuyu naa la. waaw ñu lay fay. waaw di la siyaar di la màggal di kontaanee di dalal jàmm baax. ñu gis combat bi euh, wàccaay la xawoon na yàgg tuuti naka ngeen ko doon waajee. waaw combat bi waaw yàgg na trop wàccaay bi métti na bi am na attaque lu teg waaw wàccaay bi métti na trop mais mooy li ngeen gis rek waaw nekkoon suñu loxo aussi di liggéey gars yi war a jàpp tamit jàpp si rek moo waral tamit xam nga métti na mais yàlla suturaal nañu ba lépp gérer nañ ko daal. mais at moom boo ci waajee kenn du ñëw ne pare wu ma moom. waaw loolu moom dëgg la moom mais sa diggante Quench lan la laaj. waaw ñun moom saa li ñu war a liggéey daal li ñu war a def def nañ ko lenn moo ci des ñuy xaar la jours yi ñu appliqué li ñu liggéey loolu kese la. mais ñu gis nga nga duggoon Lansar am ca ndam génnaatagoo fa nga tegaat fa sànq da nga jàpp ne foofu day nooy wala. waa mooy li ma yàgg wax rek ñun xam nga ñun fii lañ secteur bi ñu dëkk la ñun côté Ndakaaru bi lañ dëkkee moo tax banlieue bi rek la ñu làmb di booleel parce que boo xoolee tey open press gis nga fi waa Bawol gis nga fi waa Fass gis nga fi waa Médina gis nga fi waa Colobane gis nga fi nga kon tey làmb mënuñu boole ñu dul waa banlieue bi parce que ñun bëri suñu biir loolu kese la moo waral duñu bàyyi xel sax dugg ci écrit duggaat fa suñu adversaire ñoo fa nekk ñuy bëri ak ñoom kese loolu kese la. mais ngay bëri moom mosagul am defet. non am na defet. ku ko daan. 10 000 moo ko daan. sa diggante yow moom xalaat nga ci xeex. waaw lu ne mën a génne que bëri dóor la ñu làmb la en tout cas ñun par nañ lépp dañuy yóbbaale lépp waaw lu mu laaj ak ñu def ko allah. ci bëri ne nañ combat bi du gaaw ndax calcul bi da ciy bëri ndax doo nangoo jël risque moom tamit noonu. waaw ñun moom ku ñu xam ku nekk xam ne ñun combat du yéex a si ñun ndax ñun chaque jour rek lamb bu ñu ñëw moom bu war bi sifflé moom li ñu war a def dañ koy def en tout cas ñun moom bu war bi sifflé dañuy appliqué dañuy yéeg sa kaw duñ taxaw di xaar waaw moom nag bu dëggalee boppam comme li ma dégg muy waxe lamb ji du yàgg dina neex dina gaaw eh, xanaa mu ñëw téye boppam comme ni muy yàgg def. non oh, yaa koo def diggante ak moom Diène Kaïré la ñëw xaw a téye boppam. waaw mais ñun moom en tout cas daal li mu koy wax moom daal comme moom moo ko def ba nga ko daal na fexe ba la set daal bu mu def loolu rek li mu waxee daal na ko jëfee rek. Hmm, xam naa ne bu ko jëfee moom lamb ji du yàgg. wàllum mobilisation bi fan nga ci toll ndax ku xam Quench xam ne day mobiliser fan nga toll ci wàllum mobilisation. waaw wàllum mobilisation bi gars yi moom fii ku ne ku xam rëbës ku ne xam ne mobilisation moom da koy koy bàyyi na loxo. xam nga te wax dëgg yàlla tamit boo xoolee gaay moom boo xoolee gaay moom pare nañ parce que supporters yi gis nga ay tooro parce que boo xoolee boo xoolee gaay yi pare nañ gaay pare nañ bu yàgg combat bi supporters yi ñoo ko gën a bëgg sax xam nga kon gaay yi moom instant ko de leneen la ñuy dagaan rek mooy ñu war a jàpp si billet yi jàpp si billet yi xam nga lu ñu am si ay billet doyul waaw parce que boo xoolee chaque combat. lii des fii nii moo ëpp lii dem stade lii dugg lii nekk si bunt bi moo koy ëpp te dara warlu ko lu ñàkk ay billets ñàkk yenn moyens nekk affaire yooyu noonu moo tax tamit dañuy lancer message gars yi jàpp si billets yi bu baax baax a baax lu ñu mu am si ay billets doyul ñu feesal stade ba mu fees dell. xam nga daan koon fi mu la mën a yóbbu. waaw xam nañ ko bu baax a baax moo tax pare wuñ sax pour moom dañuy pare pour gars yi si kaw waaw parce que combat bi wax dëgg yàlla pare wuñ sax pour Quench dañuy pare pour mbër yi nekk si kaw. parce que xam nañ lu xaar bu si combat bi allah. lan ngay wax ki nga xamante ni moo tëgg combat bi muy Baba Diaw nekk xale dugg ci làmb doon ci gan lan nga koy wax. waaw Baba Diaw dañ koy ñaanal amul dara luñ koy wax loolu di ko ñaanal yàlla réussite totale parce que moom jeune la koo xamante ni dafa am ambition te jeune bu amee ambition day neex a jàppale lenn lañ koy ñaanal yàlla bësam bii nii bësam bii la am parce que munoo dugg si làmb daaw ren nga taxaw làmb ci tool nii financé ci ay yu bëri gisoo sponsor gisoo dara dafa métti ay propre moyen am lay demee kon na si gars yi jàpp ku ci mel ni Cheikh Ba Messi nee na mooy Messi fu ko neex paas dañoo bëgg nag mu wane boppam ci làmb ji jënd billet yëpp comme ni ko yeneen politiciens yi di defee ci yeneen làmb yi dàquñu ko ndax parti au pouvoir nekk mën na ko dañ bëgg mu jënd billet yëpp gars yi fesal stade bi dell ñu xam ne moom mooy Messi bu dee dëgg la boo defee nag dafa jàpp wàccoon ak Baba Diaw parce que Baba Diaw daj na lu nekk ndax moom. kon nekk gis na li ko Baba Diaw liggéeyal biir Medina kon lenn rek la ko mën a fayee muy bésam bi ndax Baba Diaw bésam bi la am ay propre moyen nam la jël financé ko ci bés bi ay millions yu bëri amul sponsor amul dara kon nag baa Messi mi nga xamante ne tey jii nii moom la topp si ginnaawam di ko xeexal guddi di ko xeexal bëccëg na wane boppam ci combat bi jàpp si jënd billet yëpp gars yi feesal stade bi dell loolu lañ koy ñaanal waaw. lan ngay wax Quench. ma dara lu koy wax dama aw ma dara lu ma koy wax jàmm ak salaam laa koy nekk na ci si internet yi di wax di bari wax boobu léegi ñun amuñu dara luñ doon luñ koy wax wala dara yaa ngi dégg dañ koy ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp la set yàggatul li ma waxoon laay waxaat lenn laa séq ak moom mooy arbitre siffle ma duma ko daan ko bu dëgalee boppam loolu kese la amul leneen lu may siq sàq ci moom wala dara. kontaan naa ci waaw beneen bi ci des tamit mooy waa Somone dama leen di sant bu baax a baax. parce que open press bi gis nga dañ def délégation ñëw mooy gars yi nga gis ni ñu dañ dagg seen lépp bàyyi seen ay liggéey tëj seen ay place ñëw nekk naa fa ay weer làqatu fa di fa liggéey ànd ay nit yaa ngi dégg ñu siy jàpp ku si mel ne laat di si jàpp bu baax a baax a baax a baax yaa ngi dégg ñu nekk fa ay nit ñu sonn si bu baax a baax a baax xam nga ñooñu amuñu seen fay ku si mel ni monsieur le maire bu Somone dama koy sant Bokar Sadj ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko woo ci combat bi aussi xam nga Cheikh Fall Armi dañ koy woo bu baax a baax Youssou Gueye ñooñu dañ leen di woo si combat parce que dañoo dem foofu noonu gars yi taxawuñu am lu ñu defal lu rëy rëy rëy rëy yaa ngi dégg ay mbay nag jaxar soudeur métallique moom moom xëy na dañoo réeroo ba avant maa ñibbi si sax yëgoowuñu mais moom moom ku si jàppale bu baax a baax waaw ku ci mel ni Doro Gueye Doro Gueye bu Waly Seck tamit aussi ñu ngi koy woo ci combat bi baax a baax a baax a baax doomu nday Tafa Saliou doomu nday Waly Seck ñu ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax ministre Mame Mbaye Niang ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm góor gi si Dieng borom Atlantan ñu ngi koy woo ci combat bi suñu papa Diop kooku moom dañ koy sant Salif Keita DG directeur CICES kooku dañ koy sant di gërëm boobu ba léegi mu ngi siy jàpp jóge di xaalis bëri ko ci def dañ koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Mbaye ñu ngi koy sant bu baax sëñ Sidi Mbacke alxuraan gis nañ taxawaayam si ñun sëñ Fallou Maraxib ba sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa gis nañ ñaanam borom daaru Sane suñu sëriñ suñu wasila suñu yaakaar ñu ngi koy tàllal suñuy loxo di ko sant tam bu baax a baax di ko gërëm xam nga di sant daal njabootu Cheikh Modou Kara bi yëpp xam nga waaw di sant Elimane Gueye taalib Serigne Saliou di ko sant bu baax a baax a baax di ko gërëm Mortala Gueye taalib Serigne Saliou ak bool-bool yëpp parce que gars yi combat bi gars yi dañ ci sonn barke dañ leen di sonn dañ ci bu baax baax a baax xam nga moo tise tamit moom da si jàpp bu baax yàgg na siy jàpp da siy jàpp moom mooy ñun ñoo ñun ñu koy sant bu baax di ko gërëm xam nga ku mel ni tamit bara ñu ngi koy sant bu baax ay Mame Samb Ndiaye Ndéla amuñu fayam gis nañ lim ci daj moom dañu ko sant bu baax ay Modou Diagne ay Ablaye Diop xam ak supporters yi ay Toororo a Sëñ Fallou gars yi ay ponkal lañ gars yi dañuy bàyyi seen lépp di ci sonn di yëg seen moyen di ko ci def mooy ñi nga gis di jiite booy ñooy jiite combat bi ñu yëg seen propre moyen la ñuy demee amuñu ndimbal bu tax ñu naan ndimbal ndax amuñu kenn ku mës a yëkkati un million lañu may ñu wala dara kon amuñu ndimbal bu tax ñu naan ndimbal propre moyen booy ñooy dajale seen ay xaaj dajale seen ay weccet di ko si def yaa ngi dégg kon ñooñu amuñu seen fay dañ leen di sant bu baax a baax di leen gërëm Abdou Khadir gay ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di ko ñaanal yàlla aussi tamit moom parce que borom baax la te gis nañ taxawaayam si ñun ausi tamit ministre Mame Mbaye ñu koy si combat yaa ngi dégg suñu maire nag Alioune Ndoye ñu ngi koy woo si combat bi yàgg nañ ko woo mais gisuñu suñu bopp si moom dama koy waxaat encore une fois gisuñu suñu bopp si ñoom bëri naa onze combat mosuma may cent franc yaa ngi dégg te ñun ay jeunes Dakar Plateau lañ ay doomu Dakar Plateau lañ di représenter Dakar Plateau yoon la tey su ñu amee combat suñu maire nu ñu jàppale ñu chaque jour ñu koy dagaan nag wax naa ko moom ba mu dégg ko bi ma ko waxee dana ma carrément naa buro bureau bi ma ñëwee foofu noonu tey jii nii am na ñoo fa fekk tey jii nii ñu waroon ma jàllale tamit am na ñoo xam te ne ñoom ñoo ma waroon jàll yóbbu ma si ñoom bi ma fa demee gisante ak ñoom ba ba léegi après dama si leen di woo mais dañ may bañ a jël dama leen di woo sax ñu may bañ a jël te man bëgguma sonn ndax kenn wala may sonal kenn xam nga bëgguma sonal kenn parce que tamit man sama bopp laa gëm yàlla rek laa yaakaar mais en tout cas su jàppee da ci war a jàpp su jàppul da ci war a jàpp Bamba Fall aussi tamit ñu koy woo ci combat bi waaw Pascal Bassène suñu doyen ñu ngi koy woo Popol doyen ñu ngi koy woo ci combat bi xam nga di woo gars yëpp ñu jàpp ci combat bi parce que combat bi tamit li ñu ci soxla mooy mobilisation lañ ci soxla ba mu doole ay billets kese la ci soxla. képp ku ñu jàppale dañu leen ñaan ngir yàlla rasul nga jàppale ñu jëndal ñu ay billets lool la ñuy ñaan si combat bi xam nga Ndiaye Ndella moom dañ koy moom kooku ñooy moom mooy ñun waaw dañ koy sant bu baax tamit di ko gërëm parce que sonn na ci combat bi lool lool lool lool lool sax xam nga ak gars yi Dakar Plateau bi Medina Fass Colobane gis nga Ousmane tey gis nga fi ay Ada Fass ay Mbaye Gouy Gui gis nga fi champion yëpp xam nga waa Fass gars yëpp ñëw nañ aussi tamit loolu ñuy profité waa équipe Rebeuss tamit gis nañ taxawaay bi xam nga di ñaan yàlla aussi tamit mu gën a dëgëral taxawaay bi xam nga ba gaa yëpp incha allah am ay combat di am ay ndam écurie Rebeuss jël pee loolu la ñaan yàlla booy amagul combat am ay combat course yi tamit aussi tamit noonu parce que gis nañ ni ñuy sonne ci booy boobu ba ñu ba pare ba léegi ñuy ànd ak ñun di ci sonn leen dara sant bu baax di leen gërëm bu ñu amee combat dañ si daj ay coono ko si écurie Rebeuss yëpp xam nga écurie tey fu mu àgg wala nu mu mel ñoom la parce que ñoom ñoo ci doon sonn lijjanti ay kayit loolu boobu ñun duñu dara ba tey ni mu demee nii kon ñoom tamit amal nañ leen jubal dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla rek aussi tamit benn seytaane bañ a dugg si gars yi xam nga di tamit ñi nga xam ne ñoo jóge ba parcelle ko ci mel ni daam ak sóora dañ leen di sant bu baax di leen gërëm parce que tamit ñoom son daam son na ci combat bi jàpp na si bu baax a baax am na loo xam sax lu ñuy wax mais moom xam na man xam na waaw am na combat aussi tamit le douze ñu koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam xam nga loolu quoi di ñaanal ñëpp daal waaw di remercier tamit presse gis nañ seen taxawaay di leen remercier bu baax a baax a baax gis nañ seen baax a que presse ak lamb ñoo ànd mbër sans presse doo siiw doo dem fenn kon dañ leen di sant bu baax di leen gërëm sama géwél tamit maa ko xam nga wooy sant gars yi nga xam ne jàpp nañ si gars yi fii ñëw ñëpp ñu leen di bu ñu limee dañuy juum mais daal ñu ngi sant ñëpp ay ñoom Babou Touré gis nañ seen taxawaay ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ku mel ni Babou Touré amuñu fayam yàlla même fayam yàlla na ko yàlla fay parce que moom moo fi teewal Diop si tey te gis nañ ko ci open waaw di sant ñëpp daal Papis Niang ñu koy sant suñu président Saliou Diop ñu koy sant ndax organisation bi yëpp moom la sièges yi ngay gis barrières yi podium bi lépp moom la suñu président Saliou Diop boole ko di ko di xaasam di ko ci def kon moom tam dañ koy sant di ko gërëm waaw.